الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى bokk jullit sant yàlla subhanahu wa taala yàlla ñi nga xam ne moo ñu defal xéwal yu rëy yi moo ñu defal ay xéwal yu rëy yoo xam ne nee nañu ci Quraan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha boo leen jéemoon na lim xéwal yi ma leen defal yéen doomu aadama yéen jullit ñi seen laam yi dina lott ci tudd ko seen xel dina tuuti ci xalaat ko seen noppi dina tudd ci dégg ko ndax bëri boo xam ne bëri na ko ñun sax xamuñu xéewal yi yàlla defal mais yi ci mën a wàññi rek buñ ko doon jéem wàññi nee na suñu laam yi dina lott ci loolu kon ñuy sant yàlla bu baax a baax ci xéewal biir yooyu nga xam ne mësta dee bi doon teg suñu kaw bokk na ci yàlla defal ñu xéewal yu nekk ay doomu aadama xam ngeen loolu xéewal bu rëy ndax tey bu fekkonte ni suñu place bi ñu toog ak kañ nit fëlloon na fi wala ginnaaw fëll fi wala yu demee naka noonu ñëpp xam ne dafay daal xew ku nekk da ngay daal di jël daal di jóob te moom defoo boppam loolu moom bindul boppam yow defoo sa bopp doomu aadama mais yàlla ci baaxam moo la tànn mu def la doomu aadama yow nga am droit aw mbedd mu la neex kenn du la def dara mais am ñoo xamante ni ñoom ci suuf ci dëkk ci biir suuf wala ñu dëkk ci kaw suuf te ñun ñu sax traversé léeg-léeg nga seq ak fas ñu ngeen ko lu gis loolu di ko dóor ay yar bëgg lañ lañ bëgg ñu koy def xale bu ndaw di ko def te moo koy def ak doomu aadama te moom deful boppam fas kon xéwal gi yëpp mooy xéwal yàlla def ñu nekk ay doomu aadama kon ñu ciy sant Jalla Jalaalu bu baax a baax beneen bi xéwal gi gën a rëy na ci xéwal yi mooy xéwal yàlla def la nga nekk ab jullit ndax xam ngeen ni doomu aadama yi ñu bëri bëri képp koo xamante ni sàggal nga ba nekkoo jullit wala yàlla deful ak jullit na la wóor ni kooku mooy perte na perte boo xam ne perte bu biir la ndax doomu aadama li ko yàlla di teral yépp ka mu teral mooy ka ko déggal ka ko déggal la teral da nga xam ne nekk na ak jullit pare pour dund la nga xamante ni moom la yàlla bëgg mu dund ko ci àddina kooku de yàlla teral na waaye képp koo xam ne sa faan ba moo dal sa kaw nga xam ne yow caaxaan na toog seytaane nga toog kooku mooy ñi nga xam ne su ma radal naa wa asfala saafiliin yàlla da lay delloo ba nga nekk ci ñi gën a suufe yàlla ci yàlla mosul boobu bàyyi may sax ñoo lay tane ndax dafa am ñetti façon mi dégg yoo xam ne am nañ kenn ki nekk mel ne malaaka nga xam ne moom bu mooy yàlla moom jaamu yàlla la xam am bàyyi ma nga xam ne moom amulum xel moom bànnee xam rek la xam nit nekk ci diggante bu fekkente ni nit ki sàmm na ruuxam yar ko ba nga xamante nii malaaka yi ngay fekki bu boobaa mooy ndigal sax ndax moom am na lu mu xeexal am na lu mu xeexal ba jaamu yàlla waaye bu fekkee sàggat na ba fekk bàyyi nay bàyyi nay sax ñoo koy gën kon képp koo xam ne ab jullit nga koo xam ne wala nit nga koo xam ne seytaane nga topp wala li la war ci àddina taxawoo ci kon na la wóor ne yow bàyyi ma sax moo lay gën yàlla ci yàlla musal kon sant yàlla subhanahu wa taala war nañu baax a baax ñu koy sant ci xéewal yu rëy yooyu nga xam ne moom ñu koy defal ak xéewal yi ñu defal ñu toog ci jàkka yi te xamee ci yéen ci sallallahu alayhi wa sallam nee na man tamara xawman fii baytin min buyutillahi yatluuna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim sakina wa xashiyatuhum rahma wa xafatuhum almalaika wa zakarahum llahu fi man inda aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam nee na ay nit ñu dajaloo benn yoon ci néegu yàlla di fàttalante téere yàlla bi di jàngalante seen biir lislaam lu dul ne yàlla dina wàcc ci ñoom ñeenti biir bu njëkk bi mooy li ñuy wax sakina yàlla dina lañ ko defal dina lañ defal ak dal kon yàlla ñu ko yàlla defal te kii wax mooy sallallahu alayhi wa sallam wa maa yantiqu anil hawa kooku du wax ci bànneexu bakkan lu mu wax rek yàlla moo ko wax loo kon nuy wóor ne bu fekkente ni toog nañ ci néegu yàlla di fàttalante téere yàlla di jàngalante lislaam suñu biir yàlla sakina lay njëkk wàcc mooy xel mu dal sakina ko wàcc ma ci saxaaba yi kon bu mel noonu dafa wàcc ci yàlla ko yàlla defal mu ne beneen mooy wax a cheikh mu rahma yàlla muur leen ak malaanu yërmandeem yàlla ko yàlla defal kon yërmande day wàccaat seen kaw waxam suñu malaayika malaayika yi wër leen di leen ñaanal yàlla di leen tudd tamit ci mbooloo ma nekk ca moom naan xool leen sama jaam yéen de ay xale lañ yoo xamante ni yu ndaw am ay yitte yu war a doy waaye bàyyi nañ yooyu yëpp ñoo toog ci néegu yàlla ba toog ci sama néeg ba di waxtaane sama diine ji di ñu puukare woo ci malaaka naan xool leen sama jaam yéen de kon yàlla yàlla bool ci yooyu te yooyu ñeent yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu taxaw ci benn néeg toog ci néegu yàlla di fàttalante lislaam ñeent yooyu dina wàcce seen kaw kon ñu gëm ne loolu mu ngi fi ndax yonent bi moo ko wax kon yàlla nañ ko yàlla nangu kon mbokku jullit yi nga xam ne ñu ngi dégg rajo bi yëpp yi woowu ñun nañ ko yéene ñu waa quartier bi ñu leen di xamal ne woote nañ si jàkka yi seen i mbokku jullit ñoo fi woote ci li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy lislaam ñu jàngalante lislaam suñu biir jéem a jàppalante suñu biir ndax loolu lañu yàlla subhanahu wa taala sant nee na taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan na ngeen dimbalante ci baax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar ak noonu te baax ak ragal yàlla rek dañ bëgg dimbalante moo tax ñu woo suñu ustaas bi Seydou bi nga xam ne ku ko xamul tamit dégg nga ak turam ustaas la nga xam ne wax dëgg yàlla xam naa bu waxee dina feeñ ku ko xamul bu waxee di ko xam ñi ko xam moom xam nañ ku yàgg ci daaw bi la ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla ko yàlla gën a saxam yàlla fay ko ba ñu gis boppam ci li muy def waaye wax dëgg yàlla saa boo ko woowee disponible la kon ñu ngi koy jox rek kàddu yi balaa ñu gën a guddal mu dugg ak ñun ci thème bi nga xam ne moom la ñu indil tey kon oustaz dafa doon balaa waxtu bi di gën a sori wasalaamaaleykum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci turam yu sell yi noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi comme ni ko cheikh ali waxee ñu ngi dajaloo ci néegu yàlla tabaraka wa taala fas yéene def benn jaamu ci jaamu yàlla yi nit ñi yàlla dajale ci jàkk ji yàlla nañu yàlla dajale noonu ci yërmandeem yowmal qiyaama tomb bi ñu bëgg a fàttalante ak yéen nag mooy kayfa naxmi abnaana min al gazwi al fikri wa saqafi mooy naka la ñuy def ba aar sunu njaboot ci agression culturelle naka la ñuy def ba aar sunu bopp aar sunu njaboot ci loolu ñuy tuddee agression culturelle yaakaar naa ne tey ci kaw suuf amul tomb bu gën a war a yitteel jullit yi bu raw bi li ko waral mooy ñëpp xam nañ ko amul tey fu agression culturelle duggul amul doo dugg benn kër li ma waxoon vendredi ci jumaa ja ma waxaat leen ko tey doo dugg benn kër benn kër su fekkee fii ci jàkka ji am na kuy xalaat benn kër kër googu laa wax kër googu ngay xalaat ci sa xol ak sa xel doo fa dugg lu dul agression culturelle mu ngi foofu ak kër goo xalaat rek yéen ñi may dégg kër gu nekk seen xel rek kër googu laa wax agression culturelle mu nga fa fépp la dajal kenn rëccu ci mag ak ndaw góor ak jigéen maadaama anta muslim fekk jullit nga rek agression culturelle yi agsi na ci yow waaye dina jaadu laaj tomb bu toll noonu suñ ko buggee fàttali kon war nañu wax lan mooy al ghazwul fikri lan mooy agression culturelle baat la boo xam ne walla ay baat la yoo xam ne ñaari baat moo leen tënk murakkab min kalimatayni al ghazwu ak al fikri yi mooy agression ak culture ñaari baat kese la mu ne wa kalimatul ghazwi masdarun li fi'li ghaza baat boobu ñu naan agression te mu jiitu baat la boo xam ne buñ ko doon tekk ci olof mooy dina yéen moom dina di ngeen ko neex a wax ndax bëri na lu ngeen di jàmbat seen boor yi ay ay agresseur loolu mooy agression ki la koy def dalay bett nëbbu la yor loo xam ne bu la ko dóoree ba bàyyi la dootoo xam foo nekk boo doon dem penku da ngay tourner jëm sow boo wéroon da ngay feebar boo doon dund mën ngaa dee loolu mooy agression loolu la nu tubaab yi def fekk nu nu ay jullit ñu wëlbati nu def ñu ay yéefër fekk nu nuy dund ñu bëgg noo rey nu fekk nu nu wér ñu bëgg noo feebarloo ñu fekk ñu ñu jëm jox ci lislaam ñu wàññi ñu bëgg ñoo yóbbu ci nasaraan wala yahud wala ñu yóbbu ñu ci ay nit ñoo xam ne bu ñu nekk dara kon baatu agression leer na wala wala ma jaaraat ci mu des baatu culture al fikri mu nekk taraddud al qalb fi shay li itibaarihi baatu culture wala ñu ne fikri damay xalaat mooy xalaatin wala doxalin wala xeet seen dundin xeet bi seen dundin loo xam ne seen xol mu ngi ciy def taraddut mu ngi ciy déngi-déngi bis bu nekk ni seen xel nekk ci ñu fexe ba changer loolu ba waa ji bu mu xamati lan mooy cosaanam bu mu xamati fu mu bokk soo boolee ñaari mu nekk al ghazwul fikri loolu taarif lughatan la bu ñëwee ci istilaax maanaam loolu baat yi rek lañ doon tekki léegi nag bu ñëwee ci maanaa bi mu yaatu isticmaalu alwasaa'il al askariya allati ittaxazaha annasara wa gayrihim min aadaa illah li izaalati مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام عقيدة وسلوكا لولو موي الغزو الفكري اصطلاحا agression culturelle buñ koy firi ci maanaa bu yaatu ñu ne ay jumtukaay la yoo xam ne yahuud yi ak nasaraan yi ñoo ko jëfandikoo suñ kaw ak noonu yàlla yi ay jumtukaay la ñu indi ay moyens teg ko sunu kaw pour lan pour dindi pour changer sunu ngëm-ngëm sunu pas-pas ak sunuy melokaan ak sunu jubluwaay ci lislaam nañ ko changer ak soppi jullit yi changer leen ba nga xam ne dootuñu gëm ci lislaam dara pas-pas ak comportement buñ doon yem ci ñaari tomb yi rek ci ñaari firi yi muy razul fikri lugatan wa istilahan après ñu ubbi débat loolu nekk na wala nekkul kuy tontu kan mooy tontu dama leen di wax leen de waxtaan bi ñun ñëpp ci lan bokk du ma fi nekk di wax man kese ngeen may déglu da ngeen su ma laajee da ngeen may tontu loolu tey lépp ñëpp a ci teg bët lu kenn mun tawet ji jullit yëpp a soppeeku jullit yëpp lan soppi jullit deseetuñ dara ci kaw suuf seen tur yi sax soppi nañ ko tur yi de li ndaw li moo lesoon mooy tur yi tur yi sax changé nañ ko dara desatu fi loolu nag lan moo ko waral ñu indi moyens yooyu sunu kaw mooy yahudi ak nasaraan yi xam nañ ne bu ñu jéemee ay at di taal dëkk jullit yi di largue ay bomb di tëj di rey affaire yi amul benn effet jullit yi danoo gën a gëm taxaw ndax gëm ne sax dañuy jihaat bu nu dee dañuy di ko aljanna ci la tubaab yi delluwaat nag xalaat ne kon nanu jaar yeneen yoon ut yeneen i moyens ut yeneen i jumtukaay yoo xam ne danañ mën a nekk sunu réew yi toog dootuñu déplacé wu te jullit bi dinañu fexe ba changé ko bu mu gëm yàlla dan fexe ba génne ko ci lislaam fekk ñun duñu déplacé wu fexe ba jullit bu mu gëm lislaam bu mu am pas pasu lislaam comportement bu mu ne comportement islamique da ngeen fexe loolu ñett yooyu rek su ngeen ko réussiré gañe ngeen terrain bi fexe leen ba jullit bu mu jàpp ci lislaam bu mu ko gëm bu mu am comportement bi ma ne ñetti tomb yi rek tey ku waxal yàlla xam nga ne gaa yi la ñu bëggoon def nan ko fexe nañ ba jullit yi jàppatuñ ci lislaam fexe nañ ba jullit yi amatuñu pas-pasu lislaam fexe nañ ba jullit yi amatuñu ay comportement islamique loolu nag yenn saa yi nga wax ko benn waaye nekk ci jàkka yàlla bu ko yàlla baaxee mu julli suba julli tisbaar julli tafsan julli timis di liggéey mu ne mais kii day wax rek ñun ñuy julli léegi-léegi mu ne nekkuñ ci lislaam benn kenn ci ñun mun naa xalaat loolu fekk yàlla ba muy wax diine julli la mujjee te sax sunu julli yi ñuy julli lu jara xoolaat la de est-ce que ñoo ngi julli ndax alxuraan dane woon inna salaata tanha anil fahshai wal munkar julli day tere nit def lu bon ñun ñuy julli ba léegi lu bon nekk fi boo ñëwee ci buntu jàkka yi sax dañ naan la dugalal sa dàll ci biir jàkka ji jumaa ji ñu nekk boo doon laaj lan moo tax giri yi ñu def ko weñ lu tax porte bi nekk weñ am kànnaar goo xamante ne ku ko bëgg a dindi fii ngay fanaan boo doon laaj loolu waa jàkka ji lan moo tax ñu def ko fi est-ce que muus yi la kaña yi la xar yi la béy yi la tax ñu def ko fi ay jullit tax ñu def ko fi yu jàdd yu jubul voilà kon loolu moo leen di wan ne kon loolu ñuy naxe suñu bopp mooy lan va-et-vient ci jàkk dem dégg noddu ñëw nii yu teeraateer yooyu yooyu mooy nax suñu bopp dañuy nax suñu bopp rek chaque jour ñu wax ko loolu mooy nax sa bopp vendredi waxoon naa payi vendredi jot rek ku nekk gàddu sa juma sa sijaada jubal juma ñëw lal fekk yaa ngi bàyyi sa waa kë- sa waa sa kër waa safara yaa ngi bàyyi sa soxna ak sa doom safara la jëm léegi yow sa ñëw juma ban njëriñ la am hmm? fekk yow yaa ngi dem juma yaa ngi bàyyi safara sa ginnaaw te sa jum juma moo doon lan uti aljanna ah léegi yow kese nga dugg aljanna sa waa kër dem safara yow sa àjjana boobu ban njëriñ la am amul njëriñ moo tax foog ñu xoolaat li nu nekk lan la mbokk yi fal ghazwul fikri xeex boobu ñu naan agression culturelle qad daxala ila al jami muqawamat al asasi lil islam من أقيدة والاقتصاد والنظام الحكم ونظام التعليم ووسائل الإعلام amul lenn looy xalaat ci àddina bi lu julli di dund lu agression culturelle dugg na fa amul amul lenn laay wax qad daxala ila aljami muqawamat partout fépp la agression culturelle dugg amul dara lu mu bàyyi wax naa sànq léeg-léeg nit xalaat mu ne ah am na fu mu yeggu kay xanaa kër diw kooku ci boppam dañ ko agressé moom ci boppam ay soxnaam ay doomam lépp amul fu mu yeggul bu dee pas-pas yi xool leen jullit ji Sénégal ñaata façon jullit ñoo fi nekk wax leen ko am na jullit buy gis yàlla boobu sax dafa sori laa ilaha illallah bi rek ñaata façon laa ilaha illallah la ñaata façon est-ce que di ngeen ma mun a may may ma koy répété façon laa ilaha illa di ngeen ma mun a may ma koy wax façon bu ma wax rek di ngeen xam ñii ñan ñoo ko moom xëy la xëy la ñan ñoo moom boobu laa ilaha ñan ñoo moom boobu laa ilaha illa la ñan ñoo moom boobu ku nekk am nga sa laa ilaha illa allah xoolal li laa ilaha illa ay façon la ku nekk ci jullit yi fees fexe nga ba am sa bopp laa ilaaha illallah la ku nekk ak sa kër soo déggee kii rek da nga daan ah ñii de ñoom diw la allahu akbar da nga daan dégg laa ilaha illallah nga di kooku de jullit la kooku de jullit la léegi nag boo déggee da nga daan loolu ñoom diw la ku nekk sa façon pas-pas boobu ban pas-pas la jullit yi dañuy gis yàlla jullit yi duñu julli jullit yi duñu woor ndogu la ñuy joxe jullit yi duñu aji màkk jullit bi du jàng alquran jullit bi eh façon façon façon façon jullit bi moom fecc rek diine bi yëpp fecc la bu feccee ba sonn rek julli na loolu ban pas-pas la loolu lan moo koy indi mooy agression culturelle tubaab bi fexe ba dugal ay caaxaan ci diine bi financé ay nit def leen ay seex nit ñi topp leen ñu defe ne ñu ngi ci dara fekk nekkuñ ci tus ku ci dee safara nga jëm bari gay wax de te ku mu nee mu neex la ku mu nee mu naqari la ku ci dee safara nga jëm parce que dafa wuuteeg lislaam te ku dee ci lu dul lislaam safara nga jëm wa man yabtaghi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu te wa huwa fi l axirati waxuma ko yàlla moo ko wax ku jàpp lu dul lislaam yàlla mu ne kenn du la ko nangul te allaaxira te perte nga te allaaxira boo dee ci ñu perte ngay bokk ku perte fu mu jëm mooy ñu dugg safara kon dañoo fexe ba yàq pas-pas yi yemuñ ci ñu yàq économique bi lépp ay yàqu économique bi yépp riba la tey ana ban jullit moo mën a dund ci ci dëkk bi te du lekk riba ban jullit laa wax moo mën a dund tey ci kaw suuf te lekkoo riba benn waaye dina ne man mun naa ko parce que ma bañ a liggéey ci gouvernement bi dëgg la kay benn waaye mooy dem fee am ribaam ñëw daal la ci daggal dix mille dem indi la ci paquet warga wala paquet suukar imaam maa la ziyaaree li nga ne jërëjëf waay te am naa dépasse loo lekk yonent bi waxoon ne riba dina tasaaroo ba su ngeen ko lekkul di ngeen mëq ci poussière bi di ngeen romb ngeen ŋaan seen gémmiñ di noyyi pëndu riba dugg ci biir gémmiñ gi loolu mooy ni mu tasaaroo tey ni ko tubaab bi tase ci àddina bi parce que xam nañ ne jullit buy lekk lu lew suy ñaan yàlla yàlla di ko nangu booy lekk lu lew booy ñaan yàlla yàlla di la nangu yonent bi waxoon na ko saad ibnu abi waqaas saad bi mu gisee yonent bi yonent bi ñaan rek yàlla may ko saad ne yonent waaye defal ma li nga li nga li nga def nii ñaanal ma mu ne ko lan mu ne ko da ngaa ñaan rek yàlla nangu waaye may ma loolu mu ne ko atib matamaka ya saad li ngay lekk na dagan boo lekkee lu dagan boo ñaanee yàlla yàlla may la atib matamaka ya saad takun mustajabu daawa benn waaye dafay nettali mu ne loterie nationale bi ñu ko indee Sénégal mu ne sëriñ yi dañu ne lii kenn du ko fi jaayee ñëpp opposé wu ñu ciy wax guddig bëccëg ñu daal di dajale seeni borom xam-xam ñoom ñu defal leen étude naka la ñuy def ba sëriñ yi reconnaître loterie nationale ñu ne comme indi nañ ko ba pare jëlee nañ ko France indi nañ ko Sénégal kenn du ko delloo parce que indi nañ ko ba pare ak mooy financé nañ ko kon foog mu jàll ba pare dañ ko indi pour xeex xeex diine bi pour fexe nit ñi bu ñu lekk lu dagan am kenn ne leen da ngeen di fexe ba tarixa yi nekk ci Sénégal tarixa bu nekk am fa daayira daayira lonaas tijaan yi am daayira tijaan lonaas murit lonaas ñeseen lonaas canaba canaba lonaas fexe leen ba tarixa yi bu nekk rek ñu am fa daayira ca ña fay liggéey yow lan nga tijaan laa yow tijaan yéen yéen yéen juróom yéen a bokk daayira bi su gàmmu jotee ngeen ñëw ñu jox leen xaalis ngeen ziyaare ji sëriñ bi yéen lan ngeen yéen fukk ñu ne ñun ñu ne su gàmmu màggal jotee ngeen ñëw ñu jox leen xaalis ngeen dem ziyaare ji sëriñ bi ñu def noonu léegi sëriñ yi dañ doon wax araam na suñ nee daayira bi de ñëw nañ daayira nàngam ñoo ñëw ñooñu indi seen enveloppe cinq cent mille un million jox seen ñu ne ñun la waa Lonas cinq cent mille a ngi ni mën a jërëjëf yal na leen yàlla fay léegi kenn waxatul ne araam na gis ngeen ñëpp noppi na noonu la tubaab yi def dañu ñëw fekk loo xam dafa xaraam dara baaxu ci ñu jaaral ko yeneen yoon moske ko sàng ko rafetal ko ba mu rafet daal di koy indi jox ko julli di ñu jël ko xoolal mees ñëpp xamoon nañ dafa xaraam dañ ko daan dégg yokk dafa xaraam mais tey kan mooy wax yokk dafa rafet dafa xaraam koo gis mu ne sututut rafet nga ñëpp loolu la ñuy wax rafet nga ñëpp noppi dañoo dem ba loolu araamoon ñaaw bon ci diine tey ku ko def dañ naan la dafa rafet wala fi nee nañ def yaramu neen di wër te fu mu yegg si ñu ne est-ce que ak rafet fas la jigoon fas fas mooy def yaramu neen du sol tubéy du sol mbubb fu mu yegg si ñu ne sa fas bee rafet wala tey ñan ñoo ñan ñoo toppandoo fas nit ñi ñooy def yaramu neen tey bu ñu bëggee organiser miis dañuy futti nit def ko comme fas ba pare ñu ne ko rafet nga yow yaa gën a rafet yow yaay miis bi te xam ngeen ne yére mooy rafetal nit nit su summeekoo dootul rafet ku ko weddi simmeeku léegi fii ci jumaa ji léegi nit ñi daw dem seen kër ne kaay leen ngeen xool seen doom lu ko jot moom ci ngoon ak léegi ku mu dajeel wala kon yére mooy aar nit moo koy rafetal saa yoo futtee ko mënatoo rafet nekkatoo nit ndax def yaramu neen laa wax di wër jigul nit léegi loolu ci la bokk fexe ba pas-pas yi na yàqu économique bi na yàqu waaye nizaamul hukmu bu islam gouverne fenn ci àdduna bi fépp fu islam bëgg a gouverner rey leen leen dóog barki dem ba Égypte moo ci mujj gouvernement bi ñu fa coup d'état est-ce que éliruñ leen démocratiquement ah wala lépp lañ la ko defal dañ ko élire fo changer constitution bi def ko charia waaye gis nga bañ ko defee lan moo ci mujj muy ñoom ñëpp ñu ngi ci kaso bi xanaa ku nëbbatu kenn circulé wul ñëpp fi mu nekk Égypte kaso yi dañoo fees tel tel tel tel kenn xaju fa góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a ngi ci kaso yi jigéen ay jigéen ay jigéen sax ñu ngi ci kaso yi ak ay xale kon mbokki jullit yi na ngeen fexe ba jullit yi seen pas-pas ngeen yàq ko seen économie réew ngeen yàq ko ni ñuy gouverner pays bi ngeen yàq ko bu bu islam gouverner ku gëm l'islam bu mu jege wa nizaamu taalim na ngeen fexe ba yàq njàng mi bu nu jàng diine waa Sénégal lan la ñuy jàng Sénégal lan la ñuy jàng diine diine la ñuy jàng ci école publique yi Limaamu Laay diine lañ fay jàng Lamine Gueye diine lañ fay jàng université Cheikh Anta Diop diine lañ fay jàng waaw mu nga na ngeen fexe ba yàq njàng mi bu njàng diine depuis jardin d'enfant ba waa ji di am bac ba ba muy dem université ba ba muy am doctorat bu mu jàng laa ilaha illallah muhammad rasulullah na ngeen ko jàngal leneen na ngeen ko jàngal maamam golo la na ngeen ko jàngal ay idée Lénine wala Marx wala Descartes wala wala Freud wala Kant wala Sartre wala da ngeen leen jàngal ñooñu ñoo xam ne xam nga lu ñu gëm nit golo la woon ñii gëm la ilaha illallah da ngeen leen jàngal lool ngeen jël julli di jàngal leen lool moo tax lan moo xew lan moo xew tey ci école yi ñëpp a yàqu bi léegi boo amee doom nga bëgg mu yàqu rek dugal ko école bu fay dem di yàqu programme bi baaxul amul éducation amul dara loolu banditisme góor jigéen naan sàngara jigéen ñi jaay seen bopp sagatu loolu moo am ci école yi ay jigéen yuy tux góor yuy tux di langal ay tubéy xale yu jigéen yooyu dangal di paccal loolu moo fa nekk ay professeurs yu leen di ëmbal loolu ngeen loolu moo am ci école bi na ngeen fexe ba yàq programme jàng bi wa wasail al i'lam na ngeen yàq presse bi na ngeen ko yàq bu fekkee bi ñuy lire la ci kii sol journaux yi dafa yàqu baaxul bu fekkee bi ñuy seetaan la baaxul bu fekkee bi ñuy déglu la baaxul na lépp yàqu wala télévision Sénégal lan moo ci am président bi wàcc sax barki démb waxoon na ko dem Suisse ñu dugal ko hôtelam tegal ko benn écran bu géant bu nganda génneel ko Sénégal muy zappe télé yi télé bu mu zappe gis musique télé bu mu zappe gis musique mu ñibbi Sénégal daan ne non fii fii jàmm amu fi il faut ñu changer li fi nekk barki démb Macky Sall bu mu ko waxee mu ne RTS dara nekk fa journaliste yi mer mais du boobu yëpp la télé yëpp la parce que xam nga lu tax télé yi ñi mu nekk seen loxo dafa nekk seen loxo rek mais moomuñu ko loolu lañ leen nit ñi xamul wala fii ne lañ ku la abali bët lu ko neex ngay xool boo bëggee xool feneen mu ne la eh xoolal fii nga bëgg a xool mu ne la indi samay bët waaw loolu mooy wax bi da ngay gis benn benn cumbur cumbur xëy rek ubbi télé bu mu ko jëlee benn waaye xëy rek ubbi rajo fu la ko jëlee teg ay programme yu kenn xamul ay animateurs yoo xamante ne xoolal am na yenn yenn chaîne télévision yoo xam ne nekkoon naa ci benn télé xam nga la moo ñu fa jëlee waa ji bëggul ko teg màkk télé téléem bëggul ko génne màkk waaw balaa maa dee rek ngeen teg màkk fajar gi mais Sénégal am na ay juma dee leen teg juma yooyu ba ngeen di teg màkk màkk rek dafay nekk nuy kaas loolu di kaas loolu ba DG bi wax ñu ko bu yàggee mu ne waaye jowaay yow yéen seen télé bi sax dafa bëri ay émission diine mais ñi fi wax diine dañoo fi bëri ah voilà teguñ ci ay fan mu dee mu dee bi mu dee jour bi mu dee màkka lañ teg bi mu dee màkka lañ teg 6 heures ba ay fan yooyu yëpp dangay xool ni màkk ñu teg photom lu mu fay wut voilà loolu moo ma nekk Sénégal mooy yii ma lim nii da ngeen yàq pas-pas yi yàq économique réew mi yàq ni ñuy gouverner ngeen yàq programme njàng mi ngeen yàq bu ci mujje presse bi ngeen yàq ko yépp nag presse écrit ñi bind ñi dégg ñi seetaan yépp na yàqu bu dara baax lu leen neex bind leen génne leen film yu neex tasaare leen lu nekk ci dëkk bi waaw fuñ jëm lii ma wax nag est-ce que gis ngeen ko Sénégal wala gisu leen ko bu fekkee lii am na kon dëkk bi pour nit nekk fi jullit dana jafe pour nit yar fi doomam mu nekk jullit pour nit nekk ak soxnaam mu nekk jullit dana jafe trop fan ngay jaagu rëcc lii yépp ma lim dañ koo yàq te yow yaa ngi ci dëkk bi fan ngay jaar fan beneen tomb bi mooy ahdafu alxazwul fikri tomb bi ma doon leeral sànq mooy lan mooy agression culturelle léegi nag objectif bi lan la falxazwul fikri kama huwa waadix min taarifihi comme ni mu leeree ñu définir ko mu leer nañ yi ngeen dégg ko yéen ñëpp mu leer ci seen nopp ay jubluwaayam yi ci gën a rëy ñett yi kese la bi ci njëkk mooy izalatu mazahir alxayat al islamiya min xayaati almuslimin na ngeen fexe ba dindi fomp ba mu set raxas lépp loo xamante ne dañ koy gis ci nit ñu ne kii ab jullit la ci dundu jullit bi na ngeen ko fexe mu dañ na ngeen fexe daal ba ñu gis nit ki kenn du ko xàmmee ak yëhut ak nasaraan loolu am na wala amul dangay gis góor wala nga gis jigéen nga jàkkaarloo moom doo xam kii lan la lu nga ne ko yow lan nga mu ne la man jullit laa nga ne ko yow mu génne carte d'identité nga ne ko noonu mu ne billaahi jullit laa mooy mbasin billaay jullitu billaay balaa ñuy gëm ne jullit la nga waat loolu nga xam nga ne doo jullit ba ñu gëm ne jullit nga nga waat billaahi jullit laa xoolal sax sama carte d'identité nga xool doo ko gis Fatima la hawla wala quwwata illa billah nga xam ne kii jullit la fi jëm kon ñooñu réussir nañ li ñu waxoon na ngeen fexe isaala na ngeen dindi ba mu set ci xel meeg xol beeg jëmm jeeg melokaan bi parce que li ci xol bi moo nekk ci biti maa fil qalbi yazharu fil wajh nit bu kenn nax sa bopp sa xol bi li ci nekk rek loolu mu nekk sa biti bu kenn nax boppam ku ngeen gis muy def dara muy gëm dara nekk ci su ngeen ubbee xol bi lool ngeen fay fekk waaw tey nag xoolal sunu xoolal xale yu góor yi xale yu jigéen yi allahu akbar xool leen Sénégal ci dëkk boo xam ne dañu koy tiitaroo naan dëkku islaam la El Hadji Omar Foutiou jaar na fi Maba Jaxu Ba ah al imam Abdul Qadir Kan Souleymane Baal Cheikh Ahmad Bamba Alaji Malik la hawla wala quwwata illa billah nga ñëw gis seen sët yi mel nii nu mel mel ne mosuñu xam sax diine te fii jihaad sax am na fi jihaad université sax amoon na Sénégal université islamique tubaab yi ñëw taal ko pire loolu yëpp ñu fay ko nëbbu ko kenn tey lu ñu lay jàngal ci El Hadj Omar boo demee ci école yi li ñu lay jàngal ci El Hadj Omar du tas li ñu lay jàngal ci Cheikh Ahmad Bamba du dara ay El Hadj Omar kenn lu dee lañ la ciy wax ba pare nag jàpp do bandi yi saay-saay yi di la wax ñoo ñooy ñan ñu yàq réew mi ñooñu lañ njëkkati ñi doon liggéeyal réew mi ñu fay leen complètement kenn xamu leen man sax ñi yéen ñi sax tane ngeen waaye ñi nekk léegi ci primaire beeg ñi jóg a jóg ñooñu tey boo ñëwoon kenn ne ko kan mooy El Hadj Omar Foutiou mu ne la kan Balla Gaye wala mu ne la Modou Lo ah amatul lañ lañ dindi ndànk-ndànk yenn saa yi composition jot ma dem inspection jëli épreuve yi su ma ñëwee balaa may ko joxe dama koy ubbi xool nga gis yenn saa yi ay mbër mbër ay mbër bëre waaw loolu la ñuy wax jox xale yi léegi composition bëre mbër ñaari mbër yi fi ñu simmee ko fi ñu taxawee arbitre bi sifflé fi ñu songoowee ak ku daan ñu ne la nga def 1 2 3 4 5 soo ko trouvé ñu may la 10 wala ñu may la 40 points loolu jàng la loolu moo xew léegi moo tax am na benn étude fan yi bu ñu defoon sa mairie kii mairie ville Ousmane Diallo keroog dama ko fekk ci kaw tali bi rek parcelle laa ko fekk maa ngi ci taxi bi ma koy romb man ni taxi bi taxawal yóbbaale ki mu taxaw ubbi ma ne ko yéegal mu yéeg mu ne ma foo jëm ma ne ko maa ngi jëm hôtel de ville Guédiawaye dafa am benn étude bu fa am ci affaire jàng ma ne ko gunge ma mu ñëw mi ngi yëg documents yi laaj leen ko écran géant lañ ñu tegal Sénégal li commencé 6 ans ba 18 ans ci école yi laa wax de waxuma ñu duggul école la ñu nekk ci école yi xamuñ dara 6 ans ba 18 ans te ñëpp étude bi fépp la laal dafa dem ci école publique français ñëw ci école privée français ñëw ci école publique franco-arabe ñëw ci école privé franco-arabe ñëw ci daara ak ñi jàngale nii ci malier yi waaye ñoo ñëpp buñ leen nattee 6 ans ba 18 ans xamuñu dara xam nga lu ñu réussir fi nga xam ne daal moom am nañ fa xam-xam mooy ñoo par exemple mooy li ma doon wax sànq ñu wala ñeenti photo photo Senghor photo Abdou Diouf photo Abdoulaye Wade photo Macky Sall ñu ne la kan mooy président loolu de moom gars yi réussir nañ ko loolu moom ñu nga ni kii wala ñu mën la photo Modou Lo wala Balla Gaye ñu ne kan la nga ni kii loolu de mën nañ ko waaye liir liir ak calcul ñaari matières yi xamuñ ci dara te nag ci suuf ba ci kaw léegi loolu mooy walangaan ba dem université loolu mooy walangaan ba topp enseignant yi benn waaye boo xamante ne mënul liir mënul calcul ñu def ko enseignant non ni mu meloon baax na waaw ni baax na koo xam ne mënul liir mënul bind mënul calcul ñu def ko enseignant muy jàngal ay xale fu mu jëm ak ñoom ba pare mu ñoom fekk fa ay xale yoo xamante ne ñoom bëri lañ gën a gëm ak jàng mu fekk ay parents parents ay parents d'élèves yoo xam ne encore ñoom taluñu seen doom yi fu réew bi jëm moo tax mu wax leen ne nañu fexe ba dindi jullit yi effacer seen bopp yi culture islamique ak comportement bi lépp nañ ko raxas moom set ñaareel mooy iqamatu sulukiyat an nasara makanaha ah non bu leen leen dindi rek ngeen bàyyi loon noonu ah ñu vide non fexe leen ba ñu nekk ay chrétien ndeysaan fexe leen ba ñu nekk ay chrétien da ngeen leen christianiser journée mondiale barki démb de la jeunesse christianisme fu ñu ko doon defee ah Kaolack lañ ko doon def journée mondiale bi kañ la woon le 5 xaw ma le 6 semaine bi lu ko fa yóbbu journée mondiale kon fexe ba julli di nekk ay nasaraan fi mu nekk nii loolu moo nekk na ngeen christianiser adduna bi ñun ñi dem ci àll bi xam nañ ci dara dem nañ benn village boo xamante ne jàkka ja lañ def église village ba yëpp lañ tubbiloo jàkka ja ñu def ko église xam nga loolu boo koy wax Sénégal am ñoo xam dañ naan mais kii kii est ce que li muy wax dëgg la biñ jógee Sédhiou suñu yoon bi passé fekk nañ fa benn maire boo xam dañ ko dañ ko def chrétien jullit la woon ñu def ko chré- chrétien chrétienne jullit bu jigéen gars yi réunion nii ak ñun wax ñu ko lan mooy sabab yi lu tax ah looloo di gën a tuuti mooy bu leen leen génne ci lislaam rek ngeen bàyyi leen kon dañuy nekk ay nit mais na ngeen leen dugal ci nasaraan te loolu ay moyen la moyen la ay moyen la ñu génne pour nit ñi nekk ay catholique dañuy dem ci dëkk fekk dëkk bi dañoo am problème mu ndox ñu gasal leen teen ñu dem ci dëkk fekk dañoo am problème mu courant ñu defal leen ay lampe solaire ñu dem ci dëkk fekk dëkk bi pour ñu nduggi dañuy dem ay kilomètre kilomètre ñu fexe ba indil leen ay marché fexe ba indil leen ay ay ay ay waaw noonu la leen di naxee ndànk ndànk dama waxtaan keroog juma ba pare benn waaye ne ma man sama bàjjan dañ ko def catholique sama bàjjan dañ ko def christ chrétien ma ne ko nan lañ ko defee mu ne ma waa Caritas ñoo daan indi ndimbal buñ ko indee ci koñ bi ñu wàccee ko këram muy ànd ak ñoom di leen won ñan lañ koy jox di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom de ba benn bis la ñu xëy gis ko mu takk croix ñu ne ko ah mu ne léegi ci laa bokk bu leen sonn ca laa bokk ñi ñoo ma doy waaw loolu jaadu na nag xam ngeen lu tax mu jaadu xam ngeen lu tax loolu jaadu na yéen jullit yi fii lu ngeen def jeex na bu ngeen liggéeyul kay ñeneen liggéey bu ngeen liggéeyul pour dimbali jullit yi yee leen jàppale leen mais ñeneen liggéey pour jullit yi génn ci lislaam dafa jaadu kon na ngeen fexe ngeen taxawal suluukiyaat nasaara na ngeen fexe ngeen dugal ay jikko chrétien comportement chrétien place u l'islam fi mu waroon nekk waaw bu leen leen bàyyi ñu vide dégg naa Senghor dañ ko mus a wax waaw Senghor yow yow de chrétien nga yar sa soxna mu ne waaw ñu ngi ko doon wax loolu Rome pape bi ne ko yow mënoo fexe waa Sénégal nekk ay catholique mu ne mënuma ko de ñu ne ko léegi lan nga mën mu ne ma fexe bañ nekk ay mauvais musulman ay jullit yu bon buñ doon laaj dañ naan Senghor réussir na wala réussirul xëy na ba jullit yi Sénégal nekk jullit yu funax jullit yu nëb jullit yu bon jullit yoo xam ne lislaam jaralu leen dara dara la leen lislaam jaralul loolu ay làmmiñ ñu rëy koo fi gis muy faxar faxari di fekk dara gëmul dara loolu musiba la te loolu la ñu def fexe ba pas-pasu lislaam moo nekkul ci ñun te sunu borom subhanahu wa taala waa waxoon na ci quran walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabia millatahum wallahi yahud ak nasaraan yow mii ne da ngaa gëm diine da ngaa gëm muhammad na nga yëg ne yahud ak nasaraan duñ kontaan ci yow loolu da ngaa bàyyi sa diine ba bàyyi sa diine rek ñu kontaan ci yow tey bàyyi bi ñu bàyyi suñu diine moo tax ñu kontaan ci ñun man doo dégg Sénégal ñu wax fi dara dañuy financé dañuy indi projet yi Obama bu mu fi mujjee ñëw lu mu wax lan la indaale ñaari loxo mi daal la yor bii mu dank ci xaalis ba mu bëri bii mu dank ci góor jigéen mu ne bu ngeen ko nangoo ñu jox leen xaalis baa ngi nii tey maa ngi leen di yëgal leen de góor jigéen yàgg yàgg yàgg ay at yu ñëw su jullit di taxawul dinañ ko légaliser fii xam ngeen lu tax parce que France tey ñu ngi commencé di bëgg a dugal benn loi boo xam ne góor ak jigéen ñoo yem yére ku nekk lu la neex sol surtout ci école yi waa France ñu ngi koy commencé ñu ngi koy bëgg a dugal tey jot naa information bu France te ki ma woo France la nekk mu may wax ñun suñu doom yi fu ñu jëm man leen ngeen rawale leen rek ñëw Sénégal dugg ci internat yi jàng xale bu ndaw bu góor ngay na nga ko solal yére jigéen xale bu jigéen ngay nanga ko solal yére góor ñooñu lan la ñuy wax lu ñu bëgg parce que France est actuellement nii gouvernement ba ñi fa ëpp ñëpp ay góor jigéen lañu te ñun xam ngeen ne France moo ñuy moo ñuy lif benn waaye dafa bind benn téere mu bind Sénégal xalbu muslim wa lisaanu faransa téere boobu noonu la tudd Sénégal Sénégal mu ne Sénégal cœur bi musulman la mais làmmiñ bi tubaab la waaw loolu kon dina doy waar de xalbu muslim wa lisaanu faransi su ko defee sunu borom subhanahu wa taala waxoon na démb ne yahud ak nasaraan du ñu d'accord ci ñun mukk ñu nekk ay julit yàlla dañul waxul ci aaya boobu rek yem ci mu ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum in istataau du ñu dañ di leen xeex feeg yéen a ngi nekk ay julit kañ lañ lay bàyyi mooy boo simmee sa melokaanu jullit rek ñu daal lay mais feeg yaa ngi mel ni ñoom ni ñu bëgg yaa ngi nekk seeni xarit boobu moo doon ñaareelu tomb ci objectifu gazul fikri ñetteel bi mooy ida lam yataqabal al muslimuna at tansir fala maania min ixraajihim min al islam wa ibqaihim bi gayri diin waaw na ngeen xam ne jullit yi bu ñu nanguwul bàyyi lislaam ida lam yabqa bu fekkee jullit yi nanguñu bàyyi nanguñu dekk ay chrétien kon na ngeen fexe ngeen génne leen ci lislaam ngeen bàyyi leen ñuy ay nit yoo xamante ne dañuy wëndeelu buñ gëm diine buñ gëm dara mooy tey li am jullit bu gëmul dara xam nga boo nee jullit bi kaay nekk catholique day lànk ci ñenn ñi waaye am na ñu koy nekki sax parce que tey am na ñu fiy jógee di daw di dem Europe bu ñu demee dañuy fen ba ñenn ñi léegi nang nang ci pour këyit non man réviser politique la parce que sama dëkk jullit laa woon ma tuub rek nekk chrétien rek ma tubbi rek ñu may créel nga gis pape bi may la këyit Rome ñeneen ñi bu ñu demee dañ naan ñun ay góor jigéen lañ dañ ñu bëgg a rey ñu daw ñu may leen këyit lii ma leen di wax ay nit yi nekk Europe ñoo ma ko wax ñu ne sénégalais loolu la ñuy def pour am kayit Europe ñenn ñi dañ naan ñoom ay chrétien lañ ñu may leen kayit ñenn ñi ne ñoom ay góor jigéen lañ waaw ñu may leen kayit nëbb leen lii ma la wax man ay nit ñoo ma ko wax te lu leer nañ la parce que ñu ñu nekkal foofu ñoo def loolu ñenn ñi dem nañ ba lang fa mënuñoo ñëw parce que léegi dañ leen jox ay passeport diplomate ba pare autorité yooyu yor seen surveillance di leen teg bët parce que dañoo demoon dafa ne day yomb ñu lang nag léegi lang waaw kon nag jullit yi lu mel nii jullit ñi war nañ ci toogaat góor ak jigéen mag ak ndaw xam seen taxawaay tey ci kaw suuf lan la war a doon seen biir kër yi ci mbedd mi fu nekk lan ma war a doon am na mbir yu bari bari yuy xew Sénégal jullit yi dañuy pata pataaral noppi te loolu ci programme yahud yi ak nasaraan yi leen di génn ci seen diina la bokk xoolal tey ni ñuy publicité planning familial ak avortement boobu ñuy waajo wax ne dañ koy woote ji assemblée ak yeneen ak yeneen yi ñëw yooyu yëpp ci lan la ci liy génne jullit ci pas-pasam te jullit yaa ngi noppi maanaam fii jullit yi ñoom lan mooy tax ñu mars lan mooy tax ñuy yuuxu mburu ceeb diwlin ndox kese mais seen diine lii day yàq sunu diine lii bokkul sunu culture la ilaha illallah loolu boo ne woon gaa yi kaay leen ñu dem sax ñu ne ku de ah non jaru ko nañ leen bàyyi ak yàlla rek ndeysaan lii waa Màkka waxoon Abdul Muttalib Abraha bi mu ñëwee di toj Kaaba gi yor ñay yi gaa yi ne ko ah ñun de mënuñoo xeex ak ñay mënuñoo toog fi di aar kaaba gi léegi nag nu ñuy def mu ne kon daw leen ngeen yéeg ci montagne yi daw leen ngeen yéeg ci montagne yi ñu ne ko diina ji nag mu ne inna lil diini rabban yahmi diina ji am na boroomam boroom dina ko aar inna lil bayt rabban yahmi kaaba gi am na boroomam boroom dina ko garde loolu maamu yonent bi waxoon ak waa Màkka ñun tey loolu lan wax inna li diini rabban yahmihi diine ji am na boroomam boroomam dina ko aar ñun ku nekk dugg sa biir kër taal ataaya nekk njaganaayoo sa pooju jabar dina law waaw ñu bàyyi diina yàlla ji muy tumuranke ñu bàyyi jullit yi ñu leen di sànk ñii ñu leen di rey ñii ñu leen di tubbiloo ñii ñu leen di def yu kenn xamul bu fekkee mënu leen a def jullit yi ay nasaraan na ngeen leen génne ci lislaam bu ñu am benn pas-pas nanu vidde waaw te looloo bari tey nag ay jullit yu vidde Sénégal yoo xam ne gëmuñu dara kañ la ñuy nekk jullit mooy àjjuma bu ñu déggee noonu dana rek ñu dem juma suñ pare pare nañ da ngay gis waa jaa ngi dem juma bopp bi boo ko xoolee nu mu ko def tubéy ji tubéy jaa ngi direeku ah laa ilaha illallah affaire mu ne day dem juma kooku sax xamul lu tax ñuy dem juma xamul juma lu ñu fay wuti day dem nii rek pour balaa ñu ne kii di di jullit bu koor jotee nga gis ko muy mu bokk ci association xiifal waaw day bañ rek ñu ne ah yow mag mu toll ne mu toll ne yow wooroo yow ci kër gi rek yow yaa wóorul waaw loolu ngay gis loolu moo am tey ci ñun da ngeen fexe ba bu ñu am diine boobu moo doon ahdaaf yi ñu ñëw ci turuqu tanfis lil ghazwi al fikri bayna al muslimin léegi ñoom dañu ko seen jubluwaay rek la woon léegi nag yan yoon lañ jaar pour exécuter ko lan lañ def ba agression culturelle dugg ci biir kër yëpp nan lañ ko def yan moyens lañ utiliser ba exécuter loolu yoon yooyu mbokk yi bana xuzaatul fikri manahijahum wa turuqahum li taxqiqi hadihi algaaya ala ususin ahamuha bastu subhat حول مصادر الإسلام من القرآن والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal agression culturelle seeni principe ak seeni yoon taxawal nañ ko ak seeni jubluwaay ci ay fondement ay principe utal ko ay moyen yu ne keng boole ci ay nit yu volontaire u ndeysaan biñ demee Casamance ñëwaat ba la jële mbokk yi di leen defal compte rendu yi ma ni leen da ngay jógee Dakar nga dugg oto oto bi daw ba tali bi jeex tali bu ñuul bi mu daw ba rang-rang bu xonq bi jeex nga jël saret nga dem ba ci digg àll bi foo xam ne amul courant amul ndox rubin amul néegu tabax nga fekk fa benn tubaab lu mu fi wut ñu ne corps de la paix la mu ñëw jël turu day góor la mu jël turu chef de village bi jël santam bu dee ku jigéen la mu jël benn tur ci famille bi ak sant bi di waddu di sol grand boobu bu dee góor tubaab bi la mu sol pantalon ak chemise soo ko ne kii lu mu fi def ñu ne ah moom de defee ñu ne daf ñuy dimbali nu ñu bàyyee ni ñuy ni ñuy dundee koo xam ne dalay dimbali te indiwul illeur day bay indiwul illeur indiwul paaka indiwul jaasi indiwul dara loxo kese ak big ak këyit kooku dafa la ñëw di la dimbali te loolu partout ci Sénégal boo demee ci tout Fuuta fekk fa ay tubaab yu dégg tukulóor nga dem ci dëkk olof yi nga fekk fa nga dem ci dëkku séeréer yi nga fekk foo dem ci biir Sénégal fekk fa ay tubaab yu góor ak jigéen ay américain yoo xamante ne dañoo dégg làkk bi ñoo la raw ñoo la gën a dégg olof ñoo la gën a dégg tukulóor ñoo la gën a dégg séeréer ñoo la gën a dégg joolaa ñooñu lan lañu utsi fii liggéeyal seen diine ñun ñu nekk ay sénégalais juddoo Dakar màgge fi yaroo fi suñ ñu ne woon kaay leen ngeen dem léegi léegi ñu embauché leen Kolda nga ni duma dem foofu lan moo tax àll bi amul ay enseignant amul ay ay sage-femme amul ay médecin lu tax lu tax kenn bëggu faa dem ko wax mu ne àll la te xoolal kii jóge Amérique Amérique ak Sénégal lu gën a lix ah mu ñëw Sénégal nekkul Dakar mu dem ba ci forêt ba àll bu guddee sondel lay taal wala lampe tempête wala ñu mu ngi am benn torche boo xam ne moom lay taal utal nañ ko chargeur u batterie lu muy chargeur portable am ay communique ak nu muy communiquer ak ñoom di jàng dundinu xeet wi xam ñii nan la ñuy def ba génne leen ci diine ay rapport la ñuy yóbbu année bu nekk ay conteneeru rapport ñun ñi dëkk fii ci dëkk bi nanguwuñu dem caal bi nanguwuñ ko te xoolal tubaab yi ñoom nangu jóge partout partout foo xalaat rek tubaab yi nekk ci àll bi ñaar tubaab yi ngeen di gis ci àll bi est-ce que ñooñu dañuy volontaire buñ jàngee ba génn danañu may seen diine un an wala deux ans yu ñuy dem ci àll bi liggéeyal diine bi ñëw dogal delluwaat dem liggéey yi ci ñun kan moo volontaire fi trois jours rek pour génn fi xuruj fi sabilillah dem fii Cees ñëwaat ñun ñu toog fi parce que dem am na benn xuruj bu ñu organisé woon Pikine xuruj bu ma gee organisé woon man maa fa nekkoon Ousmane Diallo ma géey ak Ibrahima Diop ak Moussa Diouf ñun cinq la ilaha illallah man après damaa ñëw ñibbi man damaa ñibbi man munuma munuma loolu ñoo ñoo ma gën man sama xol mënu nangu loolu damaa ñëw ñibbi waaw ma xam ne ñii dañuy wax gëmuñu tus boo ñu génn su xel ma ne tubaab bi dañuy jógee Amérique ñu jógee France ñu jógee Angleterre foofu gën a neex téeméer yoon ñu ñu nekk fii ci dëkk bi fii ak Pikine kaay leen xuruj fi sabilillah formation islamique doo gis kenn xoola usra yi kenn du jàng avec ça ñu ne dañuy liggéeyal l'islam nag fu ñu jëm suñ dëkk baa ngi nii te am nañ ci responsabilité ëllëg ci kanamu yàlla munu yaakaaree ne dëkk bi dañuy toog nii ñun bu dee dugg àjjana ñii ñëpp safara lañ jëm ndax suñ bopp de ah kon nanu fexe ba xam lii ñun responsabilité buñ ci am ñu taxaw ci ku nekk yàlla sa bopp la lay laaj nee na ñii yoon yi jaar pour tasaare ko bu ci njëkk mooy bastu subahaat na ngeen fexe ngeen tasaare ay sikki sàkk ak ay lëndëm lëndëm xawla masadir al islam na ngeen fekk fondement l'islam bi principe alquran muhammad ngeen attaqué ko loolu moo tax ngeen di gis temps yi foo tourné ci àdduna bi ñuy wax ci yonente bi lu bon jël ay nit sax ay jullit yoo xam ne li ma leen doon sax jullit bu gëmul dara binduloo ko ci alquran alquran baaxul dañ ko war a corriger alquran dafa am ay erreur alquran dafay weddi wante boppam du waxu du waxu yàlla waxu seytaane la am na ay jullit am na ay jullit yu ci bind Salman Rushdie Taslima Nasri ak ñeneen barki démb ci Mauritanie am na benn waaye bu ci bu ci wax bu ci bind waaye li doy waar mooy gis nga lay wan ne ñooñu nuróowu ñoo ñun waa ji bi mu waxee ci alxuraan dugal ko YouTube xaw ma Google ay seconde ku delluwaat ci internet bi doo ko fekk dañ koo génne waaye waa ji ci ay minutes autorités mauritaniennes yi jàpp nañ ko ci ay minutes yu ndaw wër nañ ko ba xam fu mu nekk jàpp ko wala ak fii fii loo neex nga def loo neex nga wax ci lislaam loo neex nga def lu la neex rawatina nag buñ la tuddee kilifa diine loo neex nga wax ci lislaam bu la neexee nga weddi sharia ah man de sharia sunu yoon nekku ci ñun jullit day toog télé di wax loolu sharia sunu yoon nekku ci su jullit ne sharia sama yoon nekku ci te nga yor ay doomu jullit doomu jullit yooyu nga yor foo leen dugal loo leen nar a def wala léegi am na fi benn waay boo xam ne man de alxuraan sama yoon nekk ci xaw ma ci dara sax loolu li nuroog neuf laa ci xam xoolal ni ñuy takkee sëy yi xoolal sëy yooyu muy takk xoolal ñooñu ay jullit lan nga defe ne ñooñu ñu takkee sëy yi yooyu doom yi ci juddu ay doomi lan lañ ay doomi njaaloo ku nekk rek taxaw leen nga taxaw ana ki nga bëggal nga ni mi ngi nii rek ñu ne takk nañ sëy bi acca dem leen noonu la yonent bi doon takkee sëy yi maanaam lépp la ñuy fawee ci lislaam na ngeen fexe ngeen indi ay gàkk-gàkk ci alquran na ngeen fexe ngeen indi gàkk-gàkk ci sharia na ngeen fexe ngeen lëndëmal yonent yàlla muhammad ngeen tuumaal ko yàq derem bu fekkee yu ngand yooyu nag lañ daaneel tabax bi fondement bi leen yëngal fu tabax bi jëm mooy léegi li li israéliens yi di def di def di def Palestine maanaam ñëw ci wetu mosquée bi ne dañuy ne dañuy defar dañuy dañuy dafa am lu ñuy gas dafa am lu ñuy indi ay bulldozer yoo xamante ne machine yoo xam ne bu ñu ko tegee ci suuf si su ne këgëgëgëgëgëg fondement jàkk ji yëngu jàkk ji commencé di def ay fissure parce que dañ ko bëgg daaneel mais ñemewuñu xëy rek daaneel ko mais dañuy ñëw ci wetu jàkk ji instant yi may waxee loolu moo am Palestine yahud yi dañuy indi ay ngandi machine di yëngal suuf si su ko defee jàkk ji di xar di daa di xar te bu bu xaree kenn du ko defar parce que dañ ko dañ ko am dañoo dañu dañ ko encercler benn jullit du fa dugg mais ñeme wuñ ko daanee parce que bu ñu ko daaneelee adduna bi dañuy wax kon jullit yi dañuy jóg ci adduna bi léegi nag dañuy fexe di yëngal fondement bi jàkk ji di fissure genn wàllu jàkk ji lépp lépp lépp a yàqu noonu la ñuy def léegi mooy liñ def l'islam na ngeen fexe ngeen yëngal sharia bi miir bi na ngeen yëngal fondement bi bu ngeen ko yëngalee ba mu ràpp daanu yëf yi daal di yàqu suñu fexee ba jullit gëmatul charia boo nee charia ñu ne ii charia day dagg loxo charia day rey nit ii charia wóorul loolu buñ ko fi indi nañ bàyyi nii nit ñi nekk ci jàmm ñëpp a ngi ci ja li jàmm la yaa ngi yor njaboot xamoo foo jëm xoolal barki démb trafic démb xaw ma tey trafiquant drogue bi ñu libéré lan lañ justifié ñu ne comportement am dafa baax kuy jaay drogue nu comportement am baaxee lan kon lan mooy comportement gaa yi luy comportement kuñ jàppe ngay jaay drogue ñu tëj la cinq ans trois ans sursis deux ans ferme nga tëdd neuf mois ñu libéré la ñu ne pourquoi ñu ne non kii dafa baax quoi ku baax la parce que ni mu nekk ci kaso bi dafa dafa dafa Sénégal duñ fi tëj bandi bu ngande wala góor jigéen yi góor jigéen yi kenn du leen tëj dégg ngeen Sénégal góor jigéen bu ñu tëj lu waaw fu ñu jëm parce que ñooñu dafa am ñu nekk ci ginnaaw loolu kese la fii saay saay yépp dafa am ñu nekk ci ginnaaw moo tax kenn du leen ñeme laal mooy li ma doon wax sànq kenn du leen ñeme laal koo fi jàpp tey suba ginnaaw suba ñetti fan lay def kaso mu génn ne la xool sama waay noppalal sa bopp man mënoo maa tere wax li may wax wala li may def mënoo ma ko tere def kon yoon yi ñu jaar laa wax pour exécuter rasul fikri mooy bastu subahaat na ngeen tuur ay lëndëm jaxase xel yi ak xol yi attaqué masdarul islam principe bi jullit yi fi ñuy jëlee seen pas-pas yi na ngeen ko attaqué na ngeen attaqué quran attaqué sunna attaqué ijma attaqué qiyaas attaqué ijtihaad te lii lañ am na ngeen bind comme ñoom di weddi lu ñu wax lii lu baax la yàq leen ko loolu am na wala amul ñaareel bi mooy ijaadu ruuhu taxaasul wa zilli an nafsi ka natija li tilka subahaat bayn al muslimin na ngeen fexe ba jullit bi nekk ku torox bu jullit siggi mukk ci àdduna na torox rek fu mu nekk rek toroxal leen ko xoolal tey bañ nañ ko ba lu ñuy defar mooy ay avion yoo xamante ne amul pilote fu nu gis benn jullit buy bañ ñu yebal avion yi ñu rey ko ñibbi bu ñu waxee ñu ne benn membre al-Qaïda la ñu rey benn islamiste la ñu rey benn fondamentaliste la ñu rey après après jeex na kenn du wax fu képp kuy bañ li ñu wax rek kuy bañ rek na ngeen ko rey su ngeen ko reyee rek nee leen benn islamiste la après mu jeex ñeme woon nañ ñoo fekk léegi ci jàkka ji dóor fi bomb après xam nga lu ñuy wax journal 8 heures dafa am a- waa Al-Qaïda yu nekkoon gunaas ci benn mosquée gars yi trouvé leen rey nañ leen ñoom ñëpp jeex nañ après jeex na quoi adduna bi ñëpp dañuy noppi di wax amul enquête amul dëgg la amul du dëgg est-ce que jeex na amul justification mooy na ngeen fexe ba jullit torox bu jullit am ndam na ngeen fexe ba résultat boobu ngeen jëlee ci lëndëm bi ngeen lëndëmal sharia bi ak sunna ak ijma ak qiyaas na ngeen fexe ba mu nekk beneen bi mooy wa ihaihim anna turas al islam gayru qadir ala musayarati alxadaara na ngeen leen wax ne islaam daal munul munul dundal société da ngeen fexe ba jullit ñi gëm ne l'islaam munul avancer loo société moo tax tey la nga gis gars yi boo tegoon fii léegi ay billet nga teg billet Makka billet États-Unis billet France billet Angleterre billet Espagne billet Égypte nga ni bismillah jëkk jëkk jëkkante leen yan ñoo fi des ah lu tax lu tax gis nga mooy gëmloo bu ñu la gëmloo ne l'islam mënul avancer loo dëkk bi mënul avancer loo pays bi bu tax université amul leen lu ñu fay jàng ci l'islam parce que dañoo gëm ne l'islam day tardé loo nit ñi loolu lañ gëmloo nit ñi fexe ba jullit yi buñ gëm lislaam allahu akbar fekk wallahi lislaam moom mooy defar àdduna ci ay waxtu ay waxtu gis nga frère musulman yi bu ñu leen ko détaawuloon ñoom xam nañ liñ def ñun ñoo xamul lu nekk parce que xamoon nañ ñii fan lañ jëme réew mi te du fa woon yem golf bi lañ doon islamiser ay wa ay waxtu wallahi ay weer yu néew ñu islamiser golf bi te après dafay tasaaroo ci àdduna bi loolu lañ xam moo tax ñu freiné leen nii te jeexagul waaye mbir mi ci ñun la des fokk ñu xam xalaat yii lii nu nekkee ay nit noonu ko teg njëriñ gi nag fan lay nekk mooy ñun bu ñu jógee pour teggeeku ko waaye bu fekkee ni nii lan nar a continuer rek di dem ñi ñu nekk ci mouvement islamique sax gëmuñu mouvement islamique bi dañ ci nekk nii rek à la légère mouvement islamique bi jaraloon dara jaroon ñu bàyyi sunu lal jaroon ñu bàyyi sunuy ànd cuuraay jaroon ñu sori sunuy soxna ah fa lañ jëm te ñun ñu ne ñu ngi ci mouvement islamique ñun ñun ñoo xam li nit ñu xamul ñun ñoo war a nekk fondement bi nga xam ne nit ñi sunu kaw la ñuy tegu pour l'islam bi dem su fekkee ñun ñoo yaafoos ni ci diine kon ñeneen ñi fu ñu jëm ñeneen ñi nga xam ne xamuñ ci dara ñoom dañu leen di diri rek ñuy dem di leen yóbbu beneen mooy ginnaaw bu ngeen leen gëm leen lislaam mënul dara lislaam day tardeloo ay nit loolu benn femme dafa jóge Russie ñëw université Cheikh Anta Diop di def formation pour dégg tubaab parce que dafa am ay liggéey yu mu fa waroon liggéey pour mu communiquer ak nit ñi foog mu jàng français gars yi rapidement ñu yóbbu ko université pour defal ko formation accélérée su xëyee suba kër gi mu logé woon war a dem université mu romb ban yi romb nit ñi toog romb dëkk bi mu jékki-jékki daal ne man da dama jaaxle Sénégal quoi ñu ne mu ne mais ñi seen diine bi moo tax ñu yaafus kenn du liggéey fii ñëppay toog. benn professeur ne ko non du diine bi de mu ne non diine bi la. waa ji ne ko est-ce que risque amul ay musulman mu ne si mu ne ko est-ce que ñooñu nii lañ mel mu ne non mu ne kon du diine bi. na ñii ñoo yor culture boobu kon du diine bi ñun ñoo yor culture boo xamante ne culture lu feñaat ci lépp nag feñaat julli sax da ngay gis ku nekk ci sàpp bi di feñaat allahu akbar wéeru ci ñeneen ñi loolu loolu baaxul mbokk yi beneen bi mooy wa tasqiif alxadis anna taxallufu almuslimina lam yati illa ka natija li tamassuk bi mabadii al al islaam mu ne na ngeen leen gëmloo ngeen wax leen ne julli di tax ñi tardé résultat bi yépp mooy lan dañoo jàpp ci ay source yoo xam ne laa tastanjimu maa amu talabaat al asr dañoo jàpp ci loo xamante ne vraiment adopté wul ak jamono bi tey non vraiment yooyu la ñu gëmloo quoi waaw nga gis benn benn waaye yenn saa yi bu génn télé bi non vraiment parce que xam nga sanoo que di fekk li muy wax xoolal day wax fukki moo yoo xamante ne yow xamoo lu muy wax sanoo que maintenant c'est comment comment on dit yooyu la fay nekkee du wax dara yow nga toog rek naan nii mu wax 30 minutes yoo xam ne xamoo xamoo lu mu bugg a wax léegi nag ñu mel noonu lañ ñu boolee rek ñu ñëw di génne suñu diine da ngeen leen wax ne ndeysaan l'islam moo tax ñu tardé parce que l'islam mënul mënul ànd ak jamono bi da ngay wax loolu da ngay dégg loolu intellectuel français yi di ko wax non charia depuis non kooku kooku septième siècle la woon non ay affaire u l'islam yooyu depuis jamono bu yàgg la non ay miraas yi loolu jamono bu yàgg la ay muuraay muuraay yi ngeen di wax loolu aada kese la yooyu la ñuy gëm loolu nit ñi moom la féministes yi gëm moom la nit ñi gëm fu ñu jëm ci loolu yii mooy tariqatu tanfis yi ñu jaar pour exécuter pour agression culturelle bi am léegi nag su ñëwee ci dernier tomb bi mooy kayfa nab naxmi abnaana min al ghazw al fikri naka la ñuy def ba aar sunu bopp aar sunuy doom ci agression culturelle bi ci njëkk mooy tarbiya saliha mubayina ala al istiqama wal ifaaf foog ñu nangoo yar sunu doom yi yar bu baax boo xamante ne dafa leer naññ dafa taxaw ci fegu ak njub sunu doom yi ñu am léeg-léeg ma wax mbokk yi ñun sunu doom yi ñoo ñëw war a ëpp sens wala doomu Oustaz Saïd li ci lan la juddu ci alxuraan ak sunna papa moom yàlla na ko yàlla jégal jot naa jaar ci ay lu kenn xamul ba yàlla baaxe ko dab ko ci alxuraan ak sunna mu gëm ko léegi mu am soxna gëmloo ko loolu alxuraan ak sunna yàlla def ñu am benn doom mu judd ci alxuraan ak sunna doom jooju nan la war a mel ah doom jooju war nañ ko former ba mu ne keng kenn du ko munal dërëm fu mu dem du soppeeku mais maa la saf xale yooyu sax nga xam ne yàlla baaxe woon na ñun ñu war leen jur tey ñu ngi seetaan xale yooyu ñu ngi yàqu agression culturelle bi këf na leen ci ñun ñi tey koo dem këram doomam am na mbër voilà léegi muy wax boy bi ne oh man Balla Gaye muy sama mbër parce que yow yaa bàyyi sa doom yow yaa toog ci télé bi yaa ko bàyyi ci mbedd mi ba mu def Balla Gaye idole wala Modou Lo idole au lieu sa doom roy la yow bëgg a mel ni yow léegi sa doom yow daf laa xeeb parce que yow yoroo ko mu dem di roy mbër bi yoroo ko toppatoo xale bi ci ñun ñi toog fii laa wax kan la doomu amul mbër doom bu góor ak bu jigéen ñun ñi toog fii yépp mu nga kon foog ñu delluwaat fexe ba yar sunu doom yi nga xam ne boo nekkul ci kër gi jour dimanche combat am télé baa ngi nii xale bi du ko taal pour seetaan combat bi est-ce que mën nañ lool foofu suñ fa toll rek jaaruguñ suñu doom yi te pourtant am na fi ay mbokk yu góorgóorlu yoo xamante ne dañ koy def seen kër seeni doom duñ seetaan làmb làmb rek nag laa jëlan duñ seetaan film yu bon yi duñu seet wallaay am na benn mbokk boo xamante ne doomam du xool jigéen bu def bopp neen ci télé même bu dee journal su noon taal télé bi nii ku def bopp neen toog danaan ko nii doom bi day ñëw taxaw naan ko na jàll anawa anawa xale bi nii rek lay def anawa anawa anawa waaw na jàll na dem ah taxawal taxawal ma ko waaw demal demal demal billaahi wallahi taala xoolal loolu nu mu nekk parce que dafa dafa teel wax ak xale yi ba xale bi xam lan la war a seetaan lan la warul seetaan lan moo baax lan moo bon am naa benn doom boo xamante ne ma dama ànd ak moom ñuy jàngi jàpp ci loxo bi ñu dem ba càgg ñu gis poster Youssou Ndour bu mag mu taxaw def nii sol gis ngeen ko ci panneau publicité yi grand bu bu rëy def nii mu ne ma papa kii kan la ma ne ko kii moo gën a bon ci Sénégal mu ne ma ah ah ñu def ko fii nag ma ne waaw dañu dañoo bëgg nit ñi bon mel ne moom ñu continuer ñu dem ba ñëwaat suba ñu jaaraat foofu même heure mu ne ma papa ma ne ah mu ne ma ku bon kaa ngi nii ah parce que boo ko fa bàyyee di xoolal am naa yenn saa yi damay génn nii ànd ak ñoom kenn benn jigéen ñëw asalaamaaleykum wala benn mbokk nii rek ci gaa yi dëkkandoo yeeg gaa yi nga xam ne danga leen di xam ci dëkk bi wàcce tube yeeg bënn seen nopp yi wala benn mbër dëkk na ak sama école benn mbër yow mu gis ma rek us day daw oustaz oustaz waaw yaay sama sëriñ de waaw man ah na nga ma ñaanal de bu ma fàtte fasaale ma man nuyu ko quoi léegi su ko defee xale yi taxaw di ma xool bu nee nii rek ñaari minute rek ñu ne ma kii sa xarit la ma ne du sama xarit de du sama xarit sama xarit de ñu ne ah lu tax mu mu lay nuyu nag ma ne ko ah nuyu daf may nuyu parce que xam na ma xam naa ko wala bu dee jigéen bu def bopp neen dañ naan ma kii sa xarit la man leen du sama xarit parce que su ma nee waaw rek ñu ne ma ah yow da ngay am xarit boo xamante ne gëmul yàlla il faut ñu wax ak suñu doom yi yar leen yar bu baax boo xam ne sunu fàddoo ñoom ñu ñu ñu wattu sunu fàddoo ñu wattu am na benn mbokk boo xamante ne benn doomam bu jigéen dafa feebar ak benn doomam bu góor dem hôpital Roi Baudouin bu ñu fajoo bay ñibbi soxna si jël génn jël taxi bi mu jëlee taxi mu def ñaari xale ci ginnaaw mu toog ci kanam léegi xale bu góor bi gis na loolu te xale bu góor bi xale bu ndaw la war a tomb laaj juróom-ñaari at juróom-ñetti at papam wàcc rek mu ne ko papa sama yaay tey lu bon la def nit papa ji tiit ne ko lu bon lu bon lan lan la def mu ne dafa dugg oto toog ci wetu benn góor rek papa ji daal di ñëw ci ndaw si ne ko salaamaaleykum yow da ngaa demoon hôpital demoon nga hôpital mu ne waaw mu ne bi ngeen di ñibbisi lan nga jëloon mu ne taxi laa jël mu ne waaw foo toogoon mu ne ci kanam rek xale bi ne ci wetu ko góor ki la toog ci kanam rek mu ne ko waaw loolu ci nekk mu ne ko ci kanam yaa ko góor nga ne loolu ci nekk mu ne ah rek ku jigéen ki de ah waaw daan ni xam nga ñoom yëguñ dara seen yaram waa ji ne ko defal attention de gis nga te wax na dëgg fan la waroon toog ci ginnaaw jël xale bu góor bi teg ko ci kanam mais xoolal fii du ñu faat te yow yaa jur kii moom sax mu gën laa am conscience yooyu nañ nañu bàyyi xel bu baax yar xale yi gis nga xale yii wallahi bu ñu leen yaree yar bu baax kon yi ñuy jooy ni yëpp dañ ciy génn lan moo tax léegi ñu bàyyi kër yi kër yi vide xale yi nekk ci mbedd yi te mbaambalu waxuma ak ñeneen de waaw man waxuma ak ñeneen ñi ñun laay waxal ñun suñu bopp loolu laay wax nan delluwaat yar suñu doom yi wax ak ñoom conscientiser leen xam le ñoom société bi li nit ñi gëm ñoom gëm waruñu ko gëm ñaareel ci kayfa naxmi abnaana mooy tarbiya ala taxalluq bi axlaaqi lislaam dañ yar suñu doom ñoom jikko lislaam jàngalaat leen njàng yu baax yi naka la ñuy lekkee naka la ñuy naanee naka la ñuy soloo naka la ñuy waxee naka la ñuy nuyoowee jàngal leen askaar yi bu ñuy génn seen kër benn bis dama dugg oto wallahi keroog paasuma dama dugg toog rek xale yi dugg toog sama wet bismillah commencé jàng subhanallazi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun chauffeur bi daal ni waaw loolu lan la ma ne ko lii ñaan boo duggee ci oto mu ne allahu akbar sëñ bi foo dëkk ma yóbbu la doo fay tey mu ne ma ñii fuñ jànge fekk jardin rek ah loolu lañ war a jàngalaat sunu doom yi delloo leen ci cosaan yi bu ñuy lekk ñu xam ñaan yi démb dama doon ndogu ak sama ñaari doom yu toll nii munuñu sax wax billaahi amuñu trois ans commencé naa man def naa sama askar ndànk commencé lekk rek ñëw ñu ñëw bismillah allahumma barik la fe ma yaya maslamena ñi ñaan bi la ñuy jàng ma kontaan loolu la war def delloo war suñu doom yi jàngalaat leen mbir yi buñ ko xeeb bu njëkk ba dañ ko doon def ñun ñii toog fii sunu taaw sunu doomu taaw ak sunu doomu léegi du benn parce que lu tax taaw bi dëgër ñii ñii ñun ñoo bàyyeeku moo tax ñii bàyyeeku wala atte leen bopp wax leen dëgg yéen ñi toog fi yëpp seen taaw ak seen doom yi mujj yi duñ benn ah nangu ngeen waaw parce que boobu da ngeen dëgëroon dëggu gëm affaire bi di muur xale bi bi mu juddoo nekk liir père waaye da doon soit si li moo fi gën a kannas mu ngi am doom bu jigéen liir dina ko alak gis nga da koy muur waa ji dama critiqué loolu xoolal léegi ni boo demee sama gën fekk xale bu ndaw bu toll ni bu jigéen du muur lu mooy danoo bàyyeeku ci jikko lislaam yi parce que ñu njëkk ñi ñoo gën a dëgër léegi ñu mujj ñi parce que ñu mujj ñi léegi ñun danoo tayal mel ni nit ñi vi parce que virus bi moo nu laal agression bi noonu wax sànq moo dugg suñu kër yi léegi ñu tàyyeeku dafa ne ah man de mbir mi wax dëgg yàlla xeex naa ma sonn mënu ma ci dara ma toog rek ah taalal télé bi ñu seetaan ñun ñëpp lamb yi ñëpp a koy seetaan nan seetaan ñun ñëpp rek nan seetaan rek nan seetaan rek nan seetaan rek lan mooy suñu problème ndeysaan ñetteel mooy muraqaba muraqaba loolu dañ koo bàyyi mooy surveiller xale yi fan la ñuy dem kan la ñuy waxal lan la ñuy jàng lan la ñuy muraqaba ah muraqaba boo xam ne lépp lu xale bi di def tasarrufatul abna wal banin fi kulli waqt sama ñaari doomu jigéen yi mag yi dama leen diggoon bu ngeen amee entrée en sixième CEP ma may leen ma jëndal leen portable ñu am ma jëndal leen waaye nag ma leen jëndee ñoom xamuñu noonu ne man dama leen di surveiller ma jékki-jékki gis leen portable ñu commencé ma ne dosette portable yi sànni leen ca xaj ba léegi xamuñu portable fi nekk depuis ñaari at waaw parce que bul jënd rek bàyyi da ngay surveiller di xool di nemmeeku mais buñ bàyyi suñu doom yi duñ leen surveiller duñ surveiller xale yi ndaw yi ñu génn dem ci mbedd yi lu nekk ñu dugg ci loolu baaxul de bu baax bu yàggee dañuy mel ne waa dëkk bi te ñoom waruñu mel noonu parce que ñoom ñoo war a sauver waa dëkk bi ñeenteel mooy i'taa'uhum an nasaih al abway est ce que mbokk yi dinañ toog ba caagu ñu dajale suñu waa kër kaa leen ngeen toog ñu commencé di waxtaan ak ñoom di leen defal dar suñu kër yi di ko di leen di waxtaan ak ñoom waxtaanu diine est ce que dinañ def loolu. di waxtaan ak suñu doom yi waxtaanu biir néeg xamal leen gis ngeen dëkk bi nu mel gis ngeen xale yi niñ mel yéen waru leen mel ne xale yi parce que yéen ay jullit ngeen ci lislaam ngeen judd. yéen Muhammad mooy seen royukaay yéen Alquran mooy seen téere yéen lislaam mooy seen diine. ngeen defal ay nasaayix ay ndénkaane maanaam ñun li ñu ñàkk suñuy doom dañ ko war a am ñun xam nga amuñu loolu amuñu sens yooyu waaye suñu doom danoo war a am loolu dañoo war a am ay ndénkaane yu leer yenn saa yi sax nga defal leen xam sa diine jënd paquetu tàngal xam nga yaa koy xeeb par benn tàngal rek ku mën naanu nangam ku mën bisaar ku mën lii ku mën lii da ngay gis xale yi boo ko bañee def ñoom naal paap nan def xam sa diine wala nga tegal leen ay film islam boobu mu ngi ñëw juróomeel mooy mooy aar leen min wasail al fasad mooy li ma loon nga aar télé bi au lieu nga leen di bàyyi ñuy seetaan film n'importe di def di def loon neex di xool rajo déglu rajo yi di liir nangam aar leen ci loolu aar leen ci dëkk bi mën ngaa nekk ku baax nga bàyyi sa waa kër ak télé télé bi da leen di yàq bu yeboo nga nekk wala yi bu nekk nga nekk am yonent ngay fanaan ci jàkka ji nga bàyyi sa kër ak télé bi ñetti weer ngay def nga gis lu la métti sa kër parce que télé bi moo leen di yàq parce que télé actuellement nii jumtukaay la buy yàq lu néew ci télé télé télé yi Sénégal yi néew na télé bu ciy defar man gisuma ko gisuma ko gisuma ko laa wax ci télé yi nekk Sénégal gisuma ci buy defar boo ko amee sa kër nag doo ko contrôler doo xool li xale yi di seetaan doo xool doo xool kii génn doo xool doo xool dañuy mujj léegi di roy ñu bon ñoo ñu nekk ci télé yi juróomeelu tomb juróom-benneelu tomb bi ñuy jeexale mooy tawfiirul majaalaat wal kutub al islamiya sharaait xutab anasi aflam islam yooyu nga fexe mu am sa kër bëri fa parce que nit aussi du vide bu fekkee lu ñuy liir la ñu mën a liir utal leen ci lislaam lu ñuy liir bu fekkee lu ñuy seetaan la utal ay kasetu islaam yu ñuy seetaan bu fekkee lu ñuy déglu nii la ci bànneex utal ay anasit mahfuzat utal leen yu bëri bëri yoo xam ne ñoom bu nu bëggee féexlu ci loolu la ñuy dem nga tegal leen au lieu nga bàyyi leen ñu nekk ci télé bi nekk ci nekk ci nekk ci di déglu yeneen di dañuy yàqu kon mbokk yi maa ngi gàttal kàddu gi di jéggalu njuumte gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu